ñoom ñaar jéggi na na jël na Tapha Tine dóor na Tapha Tine a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex na pour ay réglage ay sa journée bi ba tan nga jëf noo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant le président CNC mooy woote woon tey juróom-benni promoteur yi nga xam ni ñoo régularisé woon grand combat ba dernier combat yàlla dogal ma bokk ci. Euh, léegi euh, pandémie bi moo taxan ma defoon point de presse man puusoon sama journée yàlla dogal na tey jël nañu datu euh, le 12 décembre fii ci arène nationale bu àndeek dogal yàlla incha allah ci super gala bi nga xam ni moom laa tëggoon bu àndeek dogal yàlla. sa gala bi nga ñu fàtte ñan ñoo koy waaw gala xam nga. dama ci def ñetti grand combat yu mag ak yeneen combat yu ndaw ndax euh, grand combat bi mooy kéwél ak ki nga xam ne mooy ñaq jariñu combat bi ci topp mooy capitaine dina ak Sanderep euh, ñetteelu combat bi mooy ki nga xam ni kii mooy Sandengleer ak Albouri euh, nga mooy saison bi nga mooy combat yi ak journée bi nga xam ne at bu nekk moom laay def di ko delloo njukkal le président Macky sàll mooy diggante kéwél ak ki nga xam ni kii mooy euh, ñàkk jariñu ñaareelu combat bi Tahirou Sarr di suma doom di suma rakk di suma xarit ma di ko delloo njukkal ci combat wu ki nga xam ni kii mooy capitaine dina ak Sandrep ñetteelu combat bi ci des nag nga xam ni mooy diggante Sandengler ak Albouri kooku nag dama ci bëgg a delloo njukkal render hommage ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ni def na exploit moom ak équipe ak sénégalais ak sénégalaises yi ci pandémie bi bi mu amee ba léegi diirub ñaari at taxawaay bu rafet bi nga xam ni moom la ci taxaw moom laa ko bëgg a sargale bu soobee yàlla. d'accord 12 novembre soriwul est-ce bi ñu war xañ waaw du non laa jël. Ah, pas novembre 12 décembre laa jël. donc 12 décembre incha allah bu àndee ak dogal yàlla promotion bi ma ci bëgg incha allah dinaa ko am bu àndee ak yàlla incha allah. waaw bu ko yàlla suñu borom dogalee li nga xam ni moom la ay ñaan yàlla le 12 décembre damay ñaan yàlla zéro zéro zéro zéro zéro cas li may ñaan yàlla 12 décembre bu àndeek dogal yàlla zéro cas coronavirus mooy am Sénégal bu àndeek dogal yàlla bu yàlla dogalee ay cas des fi lu mu tuut tuut dinañ jël matukaay yi nga xam ni moom la docteur yi santaane ak CNG de lutte pour arène nationale lépp loo xam ni rek gouvernement Sénégal Euh, jël na ay dogal ci CNC bi nga xam ni moom mooy démembrement bu l'État euh, fas nañ ko yéene jëfi bu àndeek dogal yàlla ci wàllu masque ci wàllu jàppale ñi nga xam ne ñooy dugg bu àndeek dogal yàlla parce que man combat yi may tëgg yëpp damay assurer amateurs yi assurer militaires yi ci biir sur journée bi même seen journalistes yi loolu musuma ko wax mais incha allah le 12 decembre képp koo xam ni dugg nga ci stade bi maa ngi ñaan yàlla suñu borom ñu dugg ci ak jàmm génn ak jàmm mais képp ku fi dugg dinañ la assuré bu àndee dogal yàlla. par rapport ak mu bëri coow ñii yàlla nga xam ne waaw loolu xam nga Pape Thialis sama doom la sama rakk la Pape dugal ci làmb euh, euh, am na ñoo xam ne dañuy nekk ci biti ci rajo yi ak journaliste yi ak télévision yi di wax te fekk régularisé wuñu dara. xam nga régulariser grand combat bokkut ak régulariser sa journée man damaa régulariser grand combat ba dernier combat lé sart yi nga xam ne moom la CNG bi tëral ne ku ko tëral lii moom la ci war sart yëpp matal naa ko soo xoolee tey ñetti loo fi am dañu ni juróom benn nit yi régulariser woon euh, man ci laa bokk ñu ne ñi nga xam ne grand combat rek lañ régulariser woon wutal nañ leen benn porox ndollu ñi nga xam nag dañoo mébatan te régulariser wuñu amuñu da dañoo mébét rek ñëw seen seen bëgg naa tëgg combat diw ak diw ñooñu ñoom bu ñëpp pare ñoom ñooy jël gis nga tey bi dëgg dikkee ñi régulariser woon fer def lépp juróom-benn nit dong la ak li nga dégg coow li bari lépp six personnes képp li nga dégg ñu wax ci rajo yeeg télé yi juróom-benn nit dong ñoo régulariser woon ci yoon ba ca topp xëy na mag na fukk nangam ba ca toppaat ñooñu mooy ñi nga xam ne ñii dañoo amoon mébét donc bu bu taabal ji am na ñoo xam ne buñ ci toogee foog dëgg feeñ parce que am na ci ñoo xam ne dañuy wax te régulariser wuñu dara. mais euh, combat yi day dem mais passe sanitaire lañ obligé nit ñi la ñu exigé nit ñi maanaam ku ñëw dangay ñàkk ba pare est que loolu du wàññi seen seen seen mobilisation. waaw xam nga loolu man du man maa koy dogal bu fekkente ni bii xam nga ne nit ñi na ñëw ñàkku kaay wér ku ñu ko wax da nga war a sant yàlla mais daal bu ñu fi yàlla bàyyee le 12 décembre fas nañu yéene ñaan yàlla. le 12 décembre dana fekk Sénégal ci zéro cas coronavirus bu ànd ak dogal yàlla incha allah. ok merci père. jërë ngeen jëf. bàyyi mu jël sa jël. ak ah, sa ah, ah, jël ak sa temps bi laa jël. ma tëj ci ma ko def. ma ko ju nekk loolu. la 15 août ba ma jox ma ko jël. man ma ci waroon a tëgg la 14. la 14 kon maa la jiitu. waaw bi yéen ñaar àndoon. waaw la 14 ak la 15 bu jiitu. la 14 ak la 15. Père Maxime ñu ngi lay nuyu tey ñu ñëw ci CNG bi euh, pour jël date jot ngaa ñëw xam naa ne jot naa am ay yoo xamante ne am noo ko gisee taxaw na. waaw xam nga boo doonee ménager ba pare directeur technique yore école de lutte nga dëgmal saison yàlla def sot antuwul li lay gën a yitteel mooy nga xam ban dat la xale yi wala bërewaat pour ñu mën a continuer seen préparation. mais Leewtoo it maa ko fi teewaloon Pape Thialis gis nañ ne combat Boy Niang Tapha Tine le 19 décembre lay doon bu ci yàlla àndee ci fii ci arène nationale le 19 décembre Siteu moom it euh, combat am ak Papa Sow le 5 décembre la war a doon fii ci arène nationale euh, bu dee Abou Niassé su ma juumul ci novembre bi lay bëree le 21 novembre COENS le 28 novembre waaye euh, ne kuréel combat bi nga xamante ne le 24 juillet moo tëjoon saison bi nga xam ne fekkoon nañu def seen préparation ba pare combat boobu le 10 octobre la war a doon waaw mais yeneen date yëpp promoteurs yi jël nañu date yi ñi ngi continuer jël mais doxalin bii am tey am na solo dajale ñëpp ñu ne nañ dugg ci bureau yi nañ defaat yeneen i rencontre ñu ne mënta ne nañ toog fii bu ko defee kenn du ne dañuy jàppane kii bàyyi kay kon cétacel euh, yi dañ koy rafetlu di ñaan rek euh, activités yi continuer am na ci loo xam ne CNG mënu ko nag promoteur mënu ko mais état bi laay waxal nañu dédommagé mbër yi ndax lañ leen joxoon jeex na cas de force majeure la te secteur yëpp ñu ngi leen di jàppale ba mu des làmb toujours ma koy wax mais ba biñ ñëwee fii gisuma CNG sànni ci dara ay kàddu mbaam gàtt na mee ci jur gi la état bi na gën a joxaat cër làmb war nañ leen a dédommager mbër yi loolu daal laa am message bu may wax ndax préparé def lépp mbas mi dal ci réew mi kenn weddiwu ko mais nga ñëw rek ne leen reprendre te la nga yoroon rek financé na ko te dafa mel ni état bi ba léegi déggul ñun fa ñuy waxee na bàyyi xel mbër yi ndax ci njaboot gi lañ bokk jërë ngeen jëf. la de lutte qui était déjà programmée mais euh, renvoyée pour les raisons que j'ai évoquées déjà. Et il a été retenu également de respecter les mesures barrières. D'abord en commençant par la vaccination, et le port du masque, euh, le lavage des mains au gel hydroalcoolique, etc., etc., en passant par la distanciation physique. Hors de ça, nous avions tenu une réunion hier ici même, au siège, et nous avons convoqué les promoteurs ce jour même pour qu'on essaie de voir ensemble les moralités pratiques pour la reprise, mais également pour que chacun puisse prendre une date. pour ce faire, on a identifié trois catégories de promoteurs. D'abord, ceux qui avaient eu des galas programmés et régularisés. Ils étaient au nombre de six. Ensuite viennent ceux qui avaient eu des galas mais qui n'avaient régularisé que le grand combat. Et enfin, ceux qui avaient une date et qui étaient en train de démarcher des euh, combats de lutte. Nous avons le choix aux promoteurs qui avaient déjà régularisé et qui avaient arrêté certains à 24 heures de leur gala, d'autres à semaine et certains pour un mois. l'a donné à ces le choix de prendre des dates durant la fourchette allant du 1er octobre au 15 novembre. que c'est impacté devait organiser ces 23 galas-là durant une courte période de 35 jours. Cette fois-ci, pour alléger le choix, nous leur avons offert 75 pour qu'ils prennent des dates période. Après les promoteurs qui avaient des galas régularisés, on, a, on est passé aux promoteurs qui avaient un combat, un grand pas un gala régularisé. Cela également, on choisit des dates. Et le dernier paquet, c'était, c'est ce qui avait des dates, mais sans pourtant régulariser leur euh, combat. Alors, il convient également de préciser que nous avons eu à donner la possibilité aux promoteurs, aux managers, aux lutteurs qui sont impactés et qui se trouvent dans ce lot-là la possibilité de continuer à combattre, à lutter donc et à faire leur formalité administrative sans acheter une nouvelle licence jusqu'au 15 décembre. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que tous ceux qui ont des licences ici, que ce soit les lutteurs qui avaient des combats, ne vont pas acheter une nouvelle licence jusqu'au jour où ils vont combattre, combattre n'est-ce pas Et là, ils seront, ils seront obligés d'acheter une nouvelle licence. Cela veut dire que les les les les Balla Gaye les Bombardier les Gouye Gui les Siteu et j'en passe ils ont une licence qui est là déjà donc ils ne vont pas acheter nest pas une nouvelle licence ils vont combattre sur la base de la licence qui est déjà euh, dans nos locaux le CNG va prendre en charge l'assurance va faire un avenant pour assurer n'est-ce pas ces lutteurs-là durant cette période-là passé ces délais ils seront euh, obligés d'acheter une nouvelle licence. Nous avons également dit aux promoteurs de veiller à ce que, après la prise des dates, ces combats soient réalisés. Sinon, nous serons contraints, n'est-ce pas, d'interpeller, sinon d'invoquer le règlement qui stipule, n'est-ce pas, quelque chose pour ces cas précis. On ne peut pas en arriver à là. On aimerait bien qu'on qu qu'on travaille en famille et en synergie pour que ces combats-là soient déroulés dans de meilleures conditions durant la période qui est déjà définie. Et on a rappelé également aux promoteurs que l'avance la, a été déjà donnée aux lutteurs, c'est vrai, mais il reste le reliquat. Et que les reliquats, selon le règlement, doivent être déposés au CNG 15 jours avant euh, le, la tenue du gala. Nous les invitons également à, à, à, à le faire. Ceci étant dit, il faudra que nous retenions une chose, que nous avons déjà travaillé dans une ambiance, vous savez, avec les promoteurs, nous sommes dans le monde de la lutte, quand il, faut choisir, il faut éliminer. Et quand on opère à des choix, naturellement, il y a un peu de, de, On en a assisté tout de suite et c'est normal, hein, ça c'est la vie du sport et du sportif. Il faut qu'on respecte naturellement les divergences. Mais on est arrivé, n'est-ce pas, au point final qui était chaque promoteur présent puissent avoir une date même ceux qui sont absents indépendamment de leur volonté ont appelé ont téléphoné pour dire que moi je préférais avoir cette date donc on a ouvert une liste pour deux stades l'arène nationale d'abord et ensuite Iba Mar il y en a qui ont choisi d'organiser à l'arène nationale il y en a qui ont choisi euh, d'organiser au niveau de Iba Mar donc euh, tout a été accordé il reste encore des dates n'est-ce pas qui sont libres que certains Donc voilà la quintessence de notre réunion. Euh, si vous avez des questions, je suis à vous. En Wolof. Euh, vous avez, évoqué tout à l'heure les licences. Donc les licences actuelles courent jusqu'au mois de décembre. Mais à partir du mois de décembre, je précise, c'est les licences des lutteurs qui ont des contrats. Tous les lutteurs qui sont sous contrat au le CNG va prendre en charge ces licences-là pour trouver un avenant d'assurance pour que les lutteurs puissent combattre, n'est-ce pas, maintenant l'arrêt de leur combat, ils, sont, ils ont l'obligation de chercher une nouvelle licence pour la saison 2021-2022. Voilà. La reprise effective, c'est le 1er octobre. à partir du 1er octobre 2021. tout promoteur qui le désire peut organiser à partir du 1 octobre. Donc a pas de problème. Le pass sanitaire, oui, jusqu'à ce jour-ci, nous tenons à préciser que le pass sanitaire est, va être obligation. Jusqu'à ce jour-ci. Maintenant, il peut avoir des, développements d'ici le 1 octobre. Et nous nous souhaitons d'ailleurs qu'il y ait des développements très positifs, que la pandémie disparaisse. Et là, il n'y a, pas, de souci. On va dérouler comme, comme d'habitude. la carte, la, la carte de vaccination, n'est-ce pas, le masque, hein, l'utilisation des gels, hein, la distanciation physique dans les gradins, ça ce sera une je crois bien que dès la semaine pour entrer ici, il faudra mettre le masque. Ça sera une obligation pour tout le monde. Il y a la sécurité, on en a parlé en réunion et ils vont l'appliquer. À ah, wolof d'accord donc euh, solo ndaje bi tey dinaa ba leen gërëmee sant leen ñëpp.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 mu mun a métti ci ñenn ñi te loolu yëpp xëy na mun na mun na ñàkk moo tax ñu wax leen ne nañ fexe tëgg combat yooyu. ci wàllu licence yi jàpp nañu également que mbër yi nga xam ne ñu ngi sous contrat ak promoteurs yi nga xam ne aussi dañuy tëgg combat ak manager yi nga xam ne aussi am na enga mbër yu ñoo ñu déjà tënku nañu ñooñu duñ leen obligé ñu jën licence bu bees daal leen may licence bi ñu amoon ñu continuer tëgg ca parce que ñun dañuy épuisé saison bi passé la ñuy épuisé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 Euh, ragal naa sax est-ce que bi ngeen dugg laaj ñu leen ko yéen ndax est-ce que takk ngeen masque mais à partir de demain déjà bu ngeen duggati fii il faut ñu laaj leen ngeen takk seen masque au moins maintenant bu làmb ji ñëwee on va demander aux ku ñëw nga indaale sa carnet de vaccination en tout cas tey fi mu ne nii pass sanitaire bi loolu ñu loolu lañ ci tënkagum tey maintenant mun na évoluer ci kanam parce que gis nañ ne euh, li ñuy lire ci journaux yi ak li ñuy dégg ministre de santé di joxe ci résultats yi dalagum na xel yàlla na jëm kanam mun nañ dem ba nga xam déclaré nañu mbas mi jeex na fi wala il y a des pourcentages vraiment euh, négligeables yoo xam ne mu a tax vraiment ñu varier mais pour le pour le moment li ñu jàpp mooy il faut c'est une obligation pour nga am ko pour mën a ñëw seetaan làmb fii ci arène nationale ak Iba Mar Diop comment c'est valable pour les lutteurs pour les arbitres pour les vendeuses ou vendeurs de boissons euh, de cacahuètes hein les managers les promoteurs et les officiels du CNG même c'est valable donc c'est pour tout le monde quand d'accord Comment Le nombre de places, on a négocié pour avoir ou le tiers et la moitié, ou bien ou c'est le tiers, ou bien c'est la moitié, selon la capacité d'accueil, n'est-ce pas, de, l'infrastructure, que ce soit à l'arène nationale ou bien à Iba, Ibamar Diop. Bon, bon, enfin, euh, de dire que le tournoi de la CDAO se tiendra cette année-ci à Dakar. C'est pourquoi d'ailleurs l'intitulé. wàllu li ngeen a investir. jërëjëf xam nga d'abord maa ngi nuyu Sénégal yëpp du nuy képp koo xam ne yaa ngi seetaan euh, euh, internet bi muy télé yëpp di nuyu àdduna bi yëpp waaw dañuy sant yàlla rek xam nga liggéey moom boo koy def des fois day am ndog-ndog des fois day am ay problème des fois day neex loolu moo liggéey bi ñoo ànd. làmb taxawoon na ci Covid 19 bi yàlla dogal na dinañ ko ubbi ci septembre à partir le 15 septembre mën nañu organiser dañuy ñaan yàlla octobre dañuy ñaan yàlla rek ñu duggee ci ak jàmm mu jeex ak jàmm te mbas mi bañati fee am si kàttanu yàlla waaw xam nga nag li gën a metti mooy jël si xaalis dugal ko ci ay événement événement yooyu taxaw metti na mais lépp dañ koy sant yàlla rek ndax am na ñoo xam ne amuñu ko waaw non non amul benn problème amul problème parce que ñun ay commerçant lañ dañuy jënd bagage euh, jële ko Chine wala Dubaï di ko indi des fois mu am tardement ay deux mois trois mois noonu loolu lañ koy jàppe rek waaw mais dañ koy jël rek transfert ko foofu benn la man maa ngi jël 26 décembre incha allah rabi ak ak euh, le 24 novembre ñaari date laa jël am naa desa benn combat bu amoon bu ma régularisé woon muy fils de balle général Malika moom laay njëkk a tëgg damay xool ban date laa si tëgg si ñaari date yooyu euh, ndax fils de balle dafa feebaroon mais wér na dañu dina indi certificat guérison fii ci CNC. fils de balle général Malika laay njëkk a tëgg soog a tëggaat beneen incha allah. loolu laa dogee général Malika mu ne woon dootul bëreeti loolu nga ci gis. non dootul bëreeti mënul am xam nga contrat mënoo ci nekk CNC bañ régularisé ko. cas de farce mësa yàgg na am dootul bëreeti mënul nekk mënoo dugg si contrat ne duggatuma ci foog nga àggale ko ba pare soo ko bàyyi. ñu gis ay coow am ci biir xëccoo dat yi lan moo nekkoon problème bi. waaw non bokk bëgg-bëgg rek xam nga ay nit bu buñ bokkee bëgg-bëgg xëccoo mënul ñàkk mais par la suite gis nga réglé nañ lépp. kon sant yàlla alhamdulilah. pass sanitaire bi ñu ñëpp promoteur euh, wala mhm. d'accord rek ak nangu xam nga boo nekkee ci loo xam ne moom la ñëpp d'accord soo buggee nga bëgg liggéey di nga si d'accord dañ si d'accord ànd ci ak ñoom waaye ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na